ma nga gisee làmb ji jeexee par décision arbitre ñu mujjee jox sax la dégeer victoire nan nga ko dundee en tant que amateur en tant que amateur man amateur nag man amateur lig simple la waaye keroog toog naa ci seetaan làmb ji waaye li ma gis ci làmb ji ak li ma tax a jóg du benn parce que la dégeer boo xoolee am na lu ma 4 combats xaw ma 5 yoo xam ne ay niil la Eumeu Sène mooy mbor bu mag bi la dégeer mooy mbor bu ndaw moo soxla dafa waroon jëli Eumeu Sène dem xeex ak moom jàpp dem jàpp daw jàpp ko daan ko li nga xam ne moom lañ soxna ci làmb mosu ko def Lac day ñëw taxaw déggal boppam di sànni ay coups yoo xam ne du dal duuf tànk yi ci suuf du jóge fu mu nekk Lac de Guiers luñ soxla ci moom waa Géejawaay luñ soxla ci moom mooy mu ñëw déggal boppam bëre jàpp daan ñu fan doon séntu làmb ak ñu ko doon xoolee ak ñu ko doon xaaree yaakaar ne ñax ñaari mbër yooyu noonu dañuy ñëw jëkkalaat làmb ak fi làmb toll nii ñëpp xam ne làmb mi ngi bëgg a sooxeet wala ngi ñu yaakaaroon ñu di leen séentoon fu sori daal ñoom ñaari mbër yooyu noonu mais fu leen doon séentoo ak fan yegg dafa mel ne ñoom danoo danoo danoo mbëbëxal làmb quoi danoo daaneel làmb ñaar ñooñu wax dëgg yàlla fa leen doon séentoo fa leen doon xaar gisuñu leen fa pourquoi ñoom ñaar ñëpp dem ñu téye seen bopp waaw mais côté Eumeu Sène moom parce que c'est normal parce que Eumeu Sène ñëpp xam nañ dafa ci defar la génnee waaw li nga koy conseillé mooy xanaa mu ñëw xaar déglu ko déglu la daguer parce que si dëg defet bi mu jugee nii da koo laal te Eumeu Sène Eumeu Sène ko ne xam ne mooy mbëru Pikine xam soo jugee mbër nag su jugee si defet su ñëwee day téye téyewaat combat am mais ku mel ni Lac de Guiers moom moom lak moom waaye jërëjëf sax tëggal combat. combat moom wax dëgg fa yàlla lu ñu ci doon séntu moom gisuñu ko euh, ndaxte làmb dafa dee woon euh, ñu koy xaar si Eumeu Sène ak Lac de pour ñu dekki làmb ñu doon séntu bëre bu neex xam nga bëre ku ne andi fula jom fayda wax dëgg yàlla boo xoolee ñaari mbër yi préparé nañ ndax entraîné nañ lu ñu war a entraîné seen mbokk yëpp dar na leen ñëw wër nañ leen ah mais nag làmb ji amatiseur yi wax yàlla dañ see dañ see mer bu baax te mënoon naa ñàkk ndaxte Lac de moom képp ku ko xam moom ah, day xam ne moom nii lay bëree benn bëri làmb mooy day ñëw taxaw bu gisul lu leer rek du bëre. sa doxal na combat. waaw loolu moom doxalul làmb ndaxte làmb bu ñu làmb ñaar koy def du kenn nag ah, bu ñëwee nag téye seen moom bëri du feeñ balaa bëri di feeñ nag mooy ñoom ñëpp ñu ñëw ku ne bëre. Ah, Lac de Guiers moom bëgg a daan ak koo mënti doon da koy fekk si bëreem fekk si ko si lu si mu mëne nga koy jàpp daan ko. combat bi moom neexul parce que. Lac de Guiers moo waroon diriger te diriger wul comme moo soxla woon moo waroon dem parce que Eumeu Sène moom amul lu ñuy waxati ci moom ci làmb jël na lépp waaw kon moom Lac de Guiers comme jëlagul roi bi bi ba daan. mais Lac de Guiers jëm na avancé sax attaqué ko xeex ak moom mais Eumeu moo téye boppam na ci ligne bi. non attaque bi boo gisee attaque bi avertissement la bëggoon moom dafa bëggoon Eumeu Sène def benn faux ñu jox ko avertissement loolu la bëggoon waaye Lac de boo xoolee bu muy attaqué noonu di ci loxo yi. tànka yi mu ngi koy suul ci suuf jogut bougéwul benn mètre li muy def nii yëpp mu ngi mel ni kuy uh, sangu xam ma sangu neew xam ma lan lay def xam nga loolu du yoon lamb luñ ci xam mooy lu mel ni ay Eumeu ay Balla ay omo ay Modou Lo ay ñeneen Sa Thiès yooyu da ngay ñëw dëggal sa bopp bëre waaw mais xeex yeeg yi mu doon def yooyu yëpp xam nañ lan la yow parce que moom xeexam boo xam ne yow da ngay dem cëf ngay def arreeraat delluwaat tampaas fi nga nekk gëmu ko li muy def lépp da ko doon dii pour réeral askan wala pour réeral yi affaire am yooyu noonu moo tax loolu lépp gëmu ko ñëwu sax xam dara soo koy def ñi mel ngay def wala yow xeex da dem ki ngay xeexal da nga xeex moom di xeex bi nuy wax loolu du xeex ay xeexul bëréwul naan taxawal bul dem parce que soo demee ba def faux pas daanuwaat di ñaan yaa ko tey moo tax du dem waaw waaye Lac de moom lépp ci moom la nu mu waroon def mooy dem bëre ji su daanoo sax ñëpp xam ne dem na def lu mu mun mais defu ko moo tax gis nga nu mu jeexee te nu mu jeexee sax arbitre dañoo jum parce que Eumeu Sène kii dernier avertissement du avertissement waaw su génnoon saako yi kon mën nañ ko avertir mais génnul saako yi te bëri na waaw dañu avertissement moom du avertissement moom. xam nga làmb dafa am stratégie laa déggee loolu stratégie mu la rek euh, maanaam loolu da koy wax rek waaye du dëgg si moom du loo xam ne dafa doon dëgg si moom euh, peut-être ko doon napp Eumeu Sène Eumeu Sène na ko si ba sonn loolu mu doon wax mais loolu defu ko Eumeu Sène moom wan na ko maa la daanoon nii lañ daan naa la kon nag yaa soxla ñëwal jël moo tax Eumeu Sène ñëw téye boppam waaye laa déggee nag moo waroon def lu war comme xale la am na doole waroon nag faa fekk duma ko daan ko wan ni ko nag xale laa. te dama amee revanche dama koy nangu far force. loo tamit ah, avertissement bi ñu jox ah, Eumeu Sène gis nañ ne ñëpp ne ah, ñooy laaj en tant que amateur nan nga gisee avertissement bi la wala nekkul yoon. si la parce que avertissement bi yoon la parce que mbër dëgg la ko xamee woon ak li nga doon séntu Eumeu waroon na réagir def leneen parce que waruñu la topp ñu ngi lay dóor yaa ko mbër nga mais war nga def war nga jéem a def différence Eumeu Sène li mu bëree démb mosu koo bëree dana wax ne dëgg avertissement c'est normal la guerre am ko si kawam parce que li mu andi waru ko waru ko andi waroon na mën a réagir neneen waaw Eumeu Sène moom combat bi moom dafa def lu ko neex moom it yéen daal amateur kontaanoo yoon daal boo déggee waaye kontaan nunu mosu ñoo kontaan ñun lamb sax fa ñu ko doon séntu ñun man ñun mooloo si ta jeex na avertissement boobu du yoon parce que mënoo bàyyi ñaari mbëri ba dernière minute boobu sa waay gënu saaku bi dawul nga koy avertissement tegu ko fen loolu du yoon du dëgg du yoon dégg nga la de dafa war a ñëw bëre te maa ngi wax woo amateurs yi ak promoteurs yi nañu dimbale ak la de Guiers nañu dimbale ak Lac de dañoo sonn ci Lac de Guiers Lac de Guiers du mbor Lac de du mbor mbor du def li la de di def booy xool ama seen ah, ba xalaat gëddee am na fu mu génnee saako yi waaye foofu jox ko avertissement waaye dernier avertissement bu mu am mooy fu ko Lac gëddee mu arrière gëdd boobu mu arrière nag mu door ko tuuse ko looloo andi avertissement boobu moo tax ñu jox ko nag waaye loolu moom c'est normal ñu jox ko ndax dafa dafa daw naa ne dafa daw daal